tey bés bu spécial la euh, parce que suñu contrat de stage bu ñuy lié ak ministère des pêches euh, day expirer incha allah euh, demain moo taxoon ñu bëggoon réunir stagiaires yëpp fii ci centre national de de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture pour bu njëkk expliquer vraiment liggéey bu am ama solo boo xamante ni dañ koy jouer ci département ministériel maanaam mu nekk fii ci dakaar wala partout euh, si si si Sénégal mais aussi retrouvailles aussi parce que bu ñu toogee euh, deux ans xamante ni ñu ngi liggéey pour suñu dëkk suñu contrat buy waaj a jeex dafa baax tamit ñu toog waxtaan weccantooy xalaat et aussi euh, ñaax autorité yi ñu defal ñu vraiment ay contrat yoo xamante ni yu gën a dëgër comme ay contrat à durée indéterminée mun am yaakaar nañ ni war nañ ko mën surtout tamit beneen point bi mooy ñu recruter ñu euh, ci administration maanaam fonction publique. waaw euh, boo xoolee présentation da ngay xam véritablement contrat stagiaire yi ñu ngi jouer rôle bu am am solo ci biir secteur bi gis nañu waa DPM man mi di wax ak yéen présente na bureau carburant sous douane euh, kii ki nekk sama wet présente na. Euh, DPM au niveau déconcentré donc euh, euh, yoo xamante ni liggéey yu am am solo lu ñuy def waa DPSP donc direction boo xamante ni bu am am solo également gis nañ ci ay suñu naataango contact stagiaire présente nañ liggéey bu ñuy bu ñuy def waa DGFM également nga xamante ni ñoom ku ne xam nañu liggéey bu am solo bu ñu dugal parce que si nettoyage des fonds marins ñu ngi def campagne di di nettoyer géej bi xam nga di wàññi polition bi kon. du loolu kese waa DPC direction de la pêche continentale gis nañu également suñu naataango ñu ngi si biir dëkk bi euh, malgré conditions de travail yi ah, di accompagner les inspecteurs que ce soit les inspecteurs départementaux les inspecteurs euh, régionaux ak de poste si euh, seen liggéey donc présentation yi képp ko assister da xam ne véritablement contrat stagiaires yi dañ leen war a maintenir pour gën a buuste développement secteur de la pêche. Mm-hmm. wax naa ko lu door a wax nee naa ko ñaari recommandation la ñu formuler ci suñu autorités yi première recommandation mooy ñu signer ñu ay contrat à durée indéterminée parce que aussi fonction publique beneen ministère la ñun on est conscient de ça xam nañu loolu euh, bëgg nañ ko tamit ñu def ko parce que recrutement bu incha allah bu amee bëgg nañu aussi autorités yi euh, xool vraiment contre stagiaires yi ah ñu recruter parce que boo gisee koo xamante déjà am na expérience mu ngi liggéey pendant un an deux ans capitalisé kooku boo ko confirmer ci administration déjà loolu loolu loolu loolu la. Euh, maa ngi je profite de l'occasion bi di remercier euh, madame na ministre à travers euh, SG monsieur Ndiaye nga xamante ne moo ko teewal fii donc déglu nañu discours am et discours am vraiment ñun de rassuré nañu wax dëgg fa yàlla parce que boo waxee ni moom ministre bi dafa nekk fii pour gën a dooleel secteur bi te ñun dañoo bokk ci ñuy dooleel secteur bi kon loolu am nañ ci njort bu baax a baax a baax incha allah. contrat bu jeexee dina am suite te surtout suite boo xamante ne sera suite bu heureuse nga xamante ñëpp dañ ciy bëgg du benn xiiroo ni benn ŋaayu. Euh, madame le ministre des pêches des infrastructures maritimes et portuaires docteur Fatou Diouf moo ñu fi yabal pour ñu teewal ko fi donc euh, mu leen doon ndokkeel ci initiative bi ñu am stagiaires yi nekkoon ministère. Euh, ba organiser forum bi biñ ñëwee suivre nañ fi ay présentation ñu wax ci lan lañ doon liggéey lan lañ doon def parce que dama war a rappeler ni ñoom dañ nekkoon stage ci ministère bi stage boobu nag mooy jeex le le 30 juin euh, donc comme ni ma ko waxee léegi ci nasaraan école daf lay jàngal xam-xam mais noo koy doxaleeg yooyu ñëw di def ay stage ci ministère yi wala ci structure yi moo lay permettre xam-xam bi nga am mu nga mën koo jëfandikoo loolu nag ministère bi may nañ leen ko ba comme ni ma ko waxee def nañ fa stage ba stage yi suba lay suba lay jeex donc wax nañ leen aussi ñu topp exemple ñi nga xam ni ñoo leen jiitu ci école bi ñoo xam ni tey boo ko xoolee ay kilifa lañ ci ci ministère ni nga ko waxee nekkul suñ suñu ressort bon ñi ngi leen di wax nañ leen ko administration fonction publique euh, mooy mooy def euh, recrutement yeeg